Ôi Nên được Yeah, nanda kyono bagen yawule na wadi ngen jam wa dit damani damani Senegal Senegal yen yen yen yen wa wa mo wa sa taw ah mita Eh, maa ngi jégalu nee dafa coono Mbacke damaa pressé damaa pressé Mbacke yóbbu leen dama ne am ngeen jàmm mbaa réew mi nag naka réew mi mi ngi koroñoole ah naka parrainage yi ku la ngeen a hmm? yëf yi ndax neex na ah yow euh, man dafa am lu ma jaaxal ci Sénégal am lu ma yéem li ma yéem mooy. nag tey nag tey laa nar a tey laa nar a xaw ma xaw ma damay root xaw ma damay bay dama ne ndaw sii ndaw sii ndaw sii ndaw sii di layam layami nii génn gémmi gi may na kii kan la kii kii sonn na de ndaw sii sonn na fatigué na dinaa ci indi ay leeral nag waaye dafa am lu ko metti ci àdduna fi mu ne nii xol bee jeex ndaw sii xol bi jeex na am na lu ko metti ndax da xey yow fajar rek gis ñu taf ko diko wowe aji neena ma xeri mané ne ko naa mu ne ma li bama juddok juddoog nit musuma wax lu ma metté ni neena ngeen nuro ngeen nuro ne won ko mbóot du samay wax de neena ngeen ngeen ngeen ni won woon da nuro ko mbóot wala jargoñ wala gunor mo gën ngeen nan ko nuro nuróog aji saar du samay wax nak du samay wax de neena mere na leen yeen sénégalais yi yéen waa compte facebook yi nga xamante nit nit ni rek ngeen def di fenn neena ma xeri mané ko na mu ma merena sénégalais yi de layam layam ini neena mom mom dara wu ko ci yef yi mais liko metti moy mooy sénégalais yaa xëy talax laxi jënd sen connexion jurom fuk rek bari wu publier ko nan ko aji yegg ci saar ja nak nee xeri xëri ba ma daree am luma metti batay luma luma touché ni musuma ko am mané ko nak na ci waslu ak léral xam nga xeri mom yalla ne parfois day layam layam di rakam rakam yi talax laxi léegi nag euh, yéen nag Sénégal ngeen a yabaate de yéen aji Sarr kanamam yii ak kanamu ndaw sii ndax benn la nuroo nag day am ta sax ndaw si euh, bu ñu waxantee dëgg mooy nduroowul ak Adji de xëy na position bi nag day position bu Adji nag nii Adji daa bëgg bii de boo ko nee taxawal photo rek mun la nii aji boo ne ko da nga man a muy fuure la ay tank aji sar boo ne ko aji man nga ataaya muy la ay tank aji sar no taxaw ma foto la mun la ni ah ndaw siet momit dik rek momit ñu nuro la lak mom yow it kenn daa demul nga dess yow it looy la mi da am ko mom lool bi da am ko mom yow it na nga defal jonam nga jam legi sénégalais yi euh, ci lool manam aji mi di ko xool xool ndaw sii naa ndaw sii aji ajee ndaw sii déet loolu mënta nekk sa waay teen yi xool leen ndaw si xool leen teen ndaw sii xool leen teen bi kii koo gis xam ne nooyewul nooyewul Afrique de l'Ouest déedéet ah kii ko gis xam ne nooyewul Afrique de l'Ouest nooyewul Afrique du Sud kii ko gis xam ne nooyewul Sénégal senegal ngeen def ak coono mbaa am ngeen jàmm kii teen bi ko gis xam ni kii sangoowul saabu korokoo de na ngeen def ak coono am ngeen jàmm ah moom yéen Sénégal da ngeen a pitim wala da ngeen a miyox dee leen boole lu bokk nag aji saar ak bii mel ni jargoñ aji saar ak teem bii mel ni béy waaye waaye yéen yéen Sénégal nag vraiment di ngeen jay di ngeen jay nit ba di ngeen jay lafañ ba mu xëy rek tegi beekeem ni damay bonde tey tey damay bonde ah ndaw sii bu ngeen ko xoolee xool aji mi ndax benn la ngeen jël ndaw sii nee na mu juddoog léegi nee na ma xëri ma ne ko nam mu ne ma boo juddoog léegi ñu ngi may doog wax lu ma metti kii di layam layam ni ñu jël ma di ma di lek aji di ma taf nak ci internet bi di ko taf ci internet bi nak naan aji aji aji aji di fenn ne len tek nak ma xamal len kan moy ndaw si, ci wa zairan wala wa batiman ko jot dama koy bàyyi de eh koy bàyyi de nee dafa wona am ngeen jamm ki am na lu ko metti euh dama leen am lu ndaw lu ma leen won 5 minutes rek du discussion yaa ngi noonu discussion les discussions de WhatsApp man ak euh, soxna si discussion yaa ngi noonu du ma teg audio yi nag parce que intéressé wu leen intéressé wu ma intéressé wu audio yaa ngi noonu waxtaan nag man nee na ma xëri ban ma dalee sosal ak léegi ban ma dalee jiiñ ak léegi ñu ngi may jiiñ lu ma gën mit sama àdduna mooy dama nduroog aji ma ne ko yaa teegi natt bi nag looy génn làmmeñ looy fotow naan ñii hm, ñii hm, daam borom naa def ak coono discussion yaa ngi noonu waxtaan nañ wax na ma li ko metti ma ne ko nag an tant que xarit naa jox sama xalaat layam layami rakkam rakkam yi ah yaa fi génne laa mi ñu niroole laak aji nag doon te ko doo aji yaa fi génne laa mi ñu niroole laak aji naa def ak coono bàyyi lii daa am ko moom position boobu daanaka man sax moo ko defee li may ñaaw ñaaw dina niroo maag aji saar wax rek li may ñaaw ñaaw ma ko defee damay niroog aji da ngay defal naa am nga jàmm ku am joma ngi nii ku nangoo liggéey ngi nii ñu xëy rek layam lay me tafe fotoom naan ko aji mu am lu ko metti lool ni ma lii foog xëri yëg ma ne ko nag du ma nitti la waaye lu ma yëg mu siiw kii jigéewul ak aji bokkuñu sax groupe sànge moom ñu sax <laughs> bokkuñu sax groupe sàngee kii ma nga France kii ko xam ne nekkul ci joor gi kii ko xam ne kenn gardé wu ko kii ko xam ne kenn nëpp ko <laughs> kii sonnul de nañ def ak coono kii moo ne France di liggéey France liggéey bu mucc ay ci wa zaayiran ci bay sonkoom wa baati man ci liggéeyu boppam ki moy jambar nak ki nak moy garmi deug ki do aji de eh ki fenul beug tedd de na ngeen def ak ton ki dulul beug tedd de ki manam parfum yi neex ci rew mi parfum yi neex ci rew mi manam ay ñom xéti parfum ñom seen yoy yu neex yoy yu neex yoy ki ci yoy la yëngu yu neex yoy xéti neex yoy parfum yi nga xamanteni bo ne ko pitch day sedd ba da ngay yaakar ni ki <laughs> ci yoy la yëngu ki mi nga boutique senegal Ndiaye mi ngi boutique fofé ca France di jaay li nga xamni moy ay diw patriote la nak néna ma xéri mu ma mu ma man bay sonko rek lay top ki manam France raccord bi raccord ndox bi ki mo joggé xawma capital France di dox ba xawma ban village de de Paranel bay sonko ki nak moy jambar ki raccord ndox bi ci jigen ñi ko jël ci la bok ki mo dox dox dox ba ay waxam ndak ki par ndak ki parrainage bay sonko rek lay noyé na ngeen def ak cionam ngeen jàmm patriote deug ngeen ni pass fi facebook am ngi nonu waxtan nak man ba son amna lu ko metti layam layam na rakam rakami yi ko dalal nak xolal jaawla nak aji da tax nga door aji yooyu eh, daa naroon boole ci terme de bim ko ko waxe mané ko aduna mu solo yalla ko moom aduna aduna yalla ko mom de aji saar ak kanamam ngi ko gis mel ni ceebu ceebu bambay bi <laughs> kanamam ngi bëri picc ba mel ni xëri na ngeen def ak coono aji saar ak génn ñoom gu yaa gii kanamam ngi mel ni gaynde gu xëy xont gu xëy amul lu mu wan day mer de aji saar bu taay <laughs> comme ngay na ko rafle lu mu lekk rek danga dem ak coono aji saar kii nag wax dëgg yàlla xam naa nag bin ko nuróleeg yow xaw ngaa bonde nag ci koñ ba de aji ah xaw ngaa layam layam yi de xaw ngaa xaw ngaa xugaliku nag ah, ñu naan yii aji am na ko nuróol luppe aji luppe Hmm? yooyu ajee ko moom boo ko defee dañ lay niróo ak moom man rek fan yee moo ko fa defee xaw tuuti ñu ni ma aje ngi di may ñaaw ñaaw xaw tuuti ñu ni ma ajee ngi yéen internet yi bàyyi leen nettali nettali baaxul bàyyi leen fan xëy rek taf sab taf ajee ngi naan ajee ngi kii mooy ay kii mooy aji hmm? ah kon aji mool na ci diggante bi nag ajeeg sonn gi mu sonn fan yi aji nga xam ni fan yi sa waay sonn gi mu sonn ma nga génn di làkki séeréer ah ajeeg fatigué gi mu fatigué kii nga xool teem bii nga xam ne sa waay kii di diwowul karina de kii ko xool xam ne diwowul daw me nga naan lan kii yéey yéey yéey bokkul de yii yii kii kii nitu fii de nee dama ko nee na ma xëri am naa lu ma mett nag man nag waxtaan nag moom nee naa ko réew mi nii lay doxe Sénégal nii lay doxe fen ak sos ah moo fen ak sos ñu dugal ci <laughs> lu nekk nii di fen ak sos moo ñu dugal ci lu ñu lu dal fen ak sos ñu ko dal lu ñu ko teg fen ak sos lu ñu dal moo ñu ko teg kii njawa kii xam ne du aji kii njawa njaw njaw njawa waaw kay patriote la nekk ca diwaanu France di hmm? ñu xëy xëy ni ko tànjang ci internet bi naan ko aji am na lu ko metti nak neena ma xëri bu du won yow tay ci teen bala ma sàppër di fekk ci teen bala ay dugg mané ko aduna mul solo isa bari ah mooy isa bari am borom de kay ma foto la rek nga ni ni baye ko yi bu ko def baye yoy aje ko mom aje nga naan da nga mëna la xolal man ay ay tank lay fuural yey am ngeen jaam mbaa ngeen yebu leen leer na leer